mbokk yi Sibor a ngi noonu xoolal ma Sibor la mu sol ak la mu takk ca bopp ba tey làmb am na lañ koy sottil ci loxo ba tey Sibor <laughs> Sibor a ca kaw fas ba. Xaasim Laay ñoo ñi doon laayul téléphone du am bu baaxooy ay sekki sekki néegi meew mengu mengu yoo fi géeje teel a samba yaa ni ngoon si bor doole mooy bëree jaxaw nga juddoo ndeysaan wow fi nga yaroo waaw fi nga màggee fi nga fekk baax ni fi maam bàyyi woon yaay déggoo cosaan ay waay wàlli yaan da ngay daane da ngay daan da ngay doonu tey la samba yaa ni ngaan njaay digg joor na wàlli yaan yaa baaxe waaw waaw yaa baaxe yaa baaxe waaw waaw tey la samba yaa ni ngaan njaay digg joor na wol ma si boor dafay dooni ay way fay bay bal sa teewaay ci open press Sibor. waaw Sibor sama sama sama doom la moo tax bu ma woowee rek damay bàyyi lépp ñëw ndax bu mën a na ci man la moom xam na ni bokk ñu yoon ma ak moom parce que day bëre man may fecc nekk ca aar mais bu ma ko soxlaa daay bàyyi léppam day ñëw sax di fanaan Dakar ndax man kon lii ma ni c'est la moindre bu xew la war naa mën a ñëw taxaw moo tax ma bàyyi lépp ñëw taxaw. ñu gis keroog bi combat bi taxawee mu ne Ama Ndiaye jënd na ay bolok def ko ci làmb ji. waaw moo war moo war moom daa baax rek waaye li ci bëri rek moom moo koy rafetal barke maam Sara Fall waaye moom xam na fi ma toll ci moom te jaan suuf jaan ci suuf yàgg yàgg dañu tase moom xam na man xam naa. xam nga kan lay bëreel. non man jéem ma xam kenn moom laa xam man ki ma faral rek laa xam ki ma faralul xaw ma te li ma wax chaque jour rek ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal tey bu Sibor daanee fii la yem ñaanu ma ko yàlla bu demee nee leen fii la yem moo tax ma à chaque fois nañu am respect rek la personne bi nga xamante ni mooy suñu adversaire bi ci des sport la ñoom ñoo war a wane bon exemple waaw man ci point boobu laay souligner à chaque fois. naka nga gisee état de forme am. non macha nice am naa ci boobu yaakaar. koy wax lan nga koy wax mu noo koy conseillé. mu respecté adversaire am rek adversaire moom boo moomul jëndoo ko joxoo ko mu lekk jox ko jël rek ndax xale sax boo ko bëggee poñal da nga koy ñëw mu di postal. sama papa la sama xarit la sama mag la sama lépp la depuis quatre heures la fi ñëw ndax man sama yëf yëpp day guddee dernière heure la sama yëf di neex kii il est tout moi. naa ko Ouzin. ci loonee lépp man Kër Masar laa dëkk fi laa nekk. ah Ikir Yoom laa nekk Yoom laa dëkk mooy mooy sama base mais Kër Masar laa dëkk fi yeewoo. fi si boobu sama doomu nday la aussi tamit. donc nekk nit bu baax gën a waral sunu teewaay sama gaañ la. gis ngay waaj maa ngi waaj Pa Dakar. maa Pa Dakar maa ngi waaj. incha allah bu ñëwee dina xam maa ngi waaj maa moom bu ñëwee dina xam ne xaleex mag bokkuñu naa ko duma naa ko daan amul leneen amul xalaat barki Serigne Touba amul xalaat maa booy dama leen gën a waga barki alxuraan naa ko duma naa ko daan Paa Dakar bay boo nga préparé mag nga nag yaa ngi dem li simple sa solu yi di wekkaku demal nga faju ji ñëw ma duma la daan la ma lu may wax ak yow. ok. di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne tey nag ñoo ngi fii jaxaay seet si ki nga xamante ni mooy Sibor mu doon def open press ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu wéel waxtaan wi Sibor nuyu naa la. waaw onze billahi mina seytaani rajim ginnaaw bi ñu santee yàlla julli si bi sant samay ñaari waajur di may njëkk sant mooy suma mbokk mbër yi fi teew ku ci mel ni Boy Seye 2 sant gi moom dama koy dama koy sax bàyyi ak yàlla ndax combat bi moo ko taxawal moo dem jëli avance bi moo indi xaalis bi yàlla xam na ko. di sant saa bokkal li sant gars yi ma mbëri fi ñëw yëpp Unca jóge ba Malika Pako Faramaren gars yi Dum Sall sama sëriñ sama xarit Moussa Licha baro di sant gars yëpp di sant suma waa koñ di sant booy koñ yëpp di sant nag samay jigéen man yàlla dafa def man aw ma groupe man aw ma gang man yàlla dafa jël sama biddéew doome ko boole doomu aadama yëpp booy sax si ñu ko moom sax ñoo ko gën a gëm gën ko bëgg nga te te te loolu yëpp bon xëy na mbiru yàlla suñu borom la teewul nag tey ma ñëw waa jaxaay ñëpp génn soutenir ma barke alxuraan yaakaaroon naa ni sax man bu ma xewletee du mel nii mais man maa ngi doo xam ne ndimbal suñu borom laay demee di sant yàlla di ñaan gudd fan man sama aduna gudd fan rek laay ñaan ñaanuma leneen ndax lépp lu ma soxla sama aduna dama koy am ndax suma xol bu rafet ñëwal ci combat bi ñëwal ci combat bi parce que gis nañ yow yaa bëgg ki nga xamante ni mooy alliance Balde ba combat bi taxaw lan moo tax nga dugg ci alliance Balde. waaw di sant Thiatou Nguéweul di sant Téem ak di sant ñu fi ñëw ñëpp alliance Balde man maa soisir combat bi Boy Seye dox ci kombaa bi sonn ci trop nag lamb ji taxaw yàlla nag moom mooy kiy maye liggéey naa li ma war a liggéey ku ma gis xam ne liggéey naa ñaanlu naa fi ma war a ñaanlu lu ñaan ñëw doyut. gëm naa ni dina am ndam ci kawam combat ma ak alliance Baldé xam naa fi may yóbbu combat man ma ak alliance Baldé su ma ko daanee xam naa fi may yóbbu. lan nga ko ñemee lan nga xool ci alliance Baldé ba ñeme ko ba nee nañ la jox alliance. waaw xam nga man dama nekk mbër boo xamante ni dama teg dama takk sama ngemb ne mbër laa bëgg a doon sóoruma lenn ci làmb ji sóoruma kenn it am na fu ma jóge te yàlla xam na ne sa ba léegi si bor mbër daanu ko ma dégg ne daj lu mais loolu ma gën a def champion te Alliance Baldé su ma ko daanee du ma def champion ndax daanu ma champion xeebu ma ko de mais Alliance Baldé su ma ko daanee mbër la may def ndax nii nii nii maag sama combat taxaw te bëreeguñu ku nekk may bàyyi xel donc man man ñi nekk sama ginnaaw yéene ma ndam barke alxuraan maa leen gën a soxla ndam képp ku may seetaan. ngir yàlla rasulullaay nga jàpp ci ñaan yi liggéey naa li ma war a liggéey alliance boobu bu taxawee damay xeexam moom dóor ko mu daanu bu bëree dama koy daan mu indi daanu xamante ni ni mooy parrain bi muy nee na da ngeen war a xeex bu métti ndax moom lañ tuddee drapeau waaw borom drapeau bi xam nga moom dafa weex xeexkat la léegi ñu tëgg làmb ji ñaari xeexkat xam nga jamee gene fa muus ñaari xeexkat mu jël drapeau bi tuddee ko xeexkat làmb jooju du yomb alliance Baldé taxee dama koy fekk si bu ñëwee dina am lu fi fekk si est que ñeme ngaa xeex ak alliance Baldé sama premier combat ki ma bëral bi mu sumee ko ñi ànd ak man dañoo tiit dama ko dóor ñetti yoon yaa ko yóbbu ardo moo ëpp alliance Baldé doole moo ko sut. waxuma loolu de est-ce que ñeme ngaa xeex ak alliance laa wax. léegi dama la tënkal wax ji rek ki ma doon bëree premier combat moo sut alliance Baldé moo ko ëpp doole moo ko daan xeex dama ko yóbbu trois fois ardo touché wu ma benn yoon. noonu la demee nag. alliance Baldé nee na lamb ji def na ci un million xaw ma ñaata yow ñaata nga ci def. non dafa ne deux millions deux cent quatre-vingt et quelque la ci def. man li ma ci def xam naa samay mbokk li ñu ci def xam naa te fu ne bi làmb ji taxee ba léegi muy baro Luciano sama gars yi ku ci nekk bi làmb ji taxawee bi 14 août bi ñu aj ba nii may waxee yow képp koo xamante ni bëgg nga Sibor yéen nga ko jàmm rek depuis moment yooyu lañ dala génnee ba léegi mais dama fi toog naan lii lañ génnee. damay laaj man damay ñaan li ma génnee ci làmb ji ba def ci yàlla na ma ko yàlla faye ndam mais du ma ne lii laa def Alliance Baldé bu ne 2 millions et quelque la def ci làmb ji day day nax boppam rek. day dul day nax boppam. lan ngay wax Alliance Baldé moo ngi lay seetaan. waaw Alliance Baldé yàlla na ko yàlla may wér mu ñëw. mu taxaw lépp lu munti indi ci làmb ji lépp lu munti indi day daanu. fan nga teg loolu dañ la koo dee wala. waaw ci li ma liggéey ak suma gëm-gëm yàlla nag moom mooy joxe lu ko neex. damay wuti day ñëw di wut mais man sama gëm-gëm lu mu indi day daanu. merci. moom Alliance Baldé. bi nga ñëwee gis mbooloo mi teew sa xel ci lan la dem. waaw di jéegulu rek open press bi waroon na waroon na gën a taaru nii mais dafa am lu bëree bare bëri lu ci laxasu am na ma mafia bu bare bare bëri bu waroon ñëw su ma benn grand suma xarit kër Baye Kana kër Baye Alsane Diol dara xaju fa yàlla xam na ni dama ne woon damay annulé open press bi suma benn grand moo décédé barki démb. loolu waroon na sax ngeen ñëw gis nii mu demee nii mais man ndimbal suñu borom laay laay laay doxee su ma fi woote woon kaa leen ñu jooy day fees yàlla moom may loolu barke alxuraan namuwuma ko su ma fi woote woon kaa leen ñu jooy ci terrain bi di gis ay maire ay pa keneen ak keneen ñëw di jooy man dama ma yéene lu bon yàlla këpp sama kaw faamaancoor nday du ma ko sant yàlla laa koy bàyyal sama tëggkat yi Babacar liñ fecc nag répété wuñ ci dara répété wuñ ci dara dara dara dara barke alxuraanu karim dañ doon jéem rek Armand Ndiaye yàlla laa koy bàyyal depuis 4 heures la fi ñëw bëri na ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi fa waroon ñëw di sant Wally Seck jàpp nañu ci combat bu baax su ma yaay tiddi jàpp nañu ci combat bu baax a baax a baax war na ñëw nag dinaa ko woo léegi ne ko tas na fee la nekk euh, kii album lay lay lay tourné dafa ne lu mu gudd guddi dina ñëw mais dinaa ko woo dem nañ gërëm loo xam dugg na sant naa ko gërëm la c'est ma Faramaren sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp kàbboo Faramaren Boubacar Traoré Ibrahima Ndiaye MVS sant naa ñëpp bëgg naa ñëpp Garmi 12B Zal Site Jaxaay 1 Zal Site 11B Mama Lamine Caatu Ngéwél armée sama gars aram bëgg naa ko sama góor su baare yenn ma lu métti bëgg naa ko lu bari coach King bëgg naa ko bëgg naa waa école bi lépp ñëpp saa bokkal bëgg naa la ko bar xam bëgg naa dawalkat sareet ñoom libéraux bëgg gaa yëpp rek di béggee di béggee ñaambur ñaambur yi di béggee sama grand Lamine comprendre nga di béggee waa kër Pa Cissé di béggee ñëpp waa kër Pa Diak di béggee Jaxaay un ba deux ba trois ba huit béggee naa ñëpp dawal ko saret yi garage béggee naa ñëpp di wax ni dimanche ci kàttanu yàlla di ngeen gis loolee musul gis ci kàttanu yàlla di ngeen gis loolee musul gis di wax na ñëpp teel a génn ñi teel a dem stade bëre bëre bi daan daan bi ñibbisi ñibbisi bi waa Fuuta ñu ngi def délégation bu mag waa Mauritanie ñu ngi def délégation bu mag di bëggee ñëpp rek di wax yàlla ñu yàlla may ba di ba ñu fekkee ba dimanche di wax autorité ni si ñëpp ñëw jàpp monsieur Boubacar Traoré jàpp ngañ ci sant nañ la gërëm nañ la Ibrahima Ndiaye jàpp na ci di wax autorité yëpp nañ si ñëw jàpp DG Ibrahima Ndiaye Mara Thioubou DG Mandione Ndiaye di woo ñëpp ñu si jàpp sama jigéen ñi sonn nañ ci si boor barke alxuraan li may wax rek man aw ma aw ma groupe aw ma gang aw ma dara man ñoom laa am waaw di bëggee ñëpp grand Ibou Thior bëggee naa ko waa 12B cité gendarmerie pénitence waa Mame Dior Mara Thioubou bëggee naa ñëpp seer naa ñëpp